ci réew mi di li nga xam ne moom la gars yi di waxtaanee fépp ci euh, ëxlu lamb ak ci moom sport mooy combat bi nga xam ni ñëpp ko bëggoon am muy diggante Modou Lo bu Parcelles Assainies ak Balla Gaye numéro 2 bu Guédiawaye ñoom ñaar bëri nañu bu ñu koy xayma. ambition dellu si waat ci làmb ji waaye nag frappé fort ku mag léegi nag ñi doon laam-laamee naan taxaw na wala taxaw Gaston Mbengue malam moo koy gérer te moo ñu koy waxal Gaston Mbengue sénégalais yëpp a lay déglu diggante Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 kañ la fan la ak fu mu ndax leer jërëjëf euh, Lamine maa ngi bi daje yëpp di leen gërëm ci wuy si bi wuy si rawatina nag euh, sama doom sama jarbaatu promoteur yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañu seen président dafa dem Màkka tey président dafa dem Màkka tey moo tax ñëwul mais xale yëpp ñëw nañu ñu nuyu vraiment le ministre euh, Cheikh Mbacké Sakho ñu ñëw moom euh, jógee président président yebal ko fi am na ñeneen ñu waroon a ñëw sax mais xam nga dañ ni làmb ji na def ndànk-ndànk rek na Gaston meloon dafa soppeeku na on va faire la lutte autrement waaw la la lutte autrement. la lutte autrement. lu waral soppite xam nga ni day mag léegi mag la et dafa am xam nga fan yëpp ñu ngi ay coow ay polémique ay gàttal ca Gaston nekk du ñëw ma pare ci nuyoo yi su ma nuyoo Birame Gningue mi nga xam ni. moo fi nekkal Modou Lo ndax Modou Lo bi ci barrage yi dañ leen mi nga xam ni moo fi nekkal Balla Gaye lu ko Balla ci barrage leen wax di nuyu Ibrahima mi nga xam ni plateforme bi nga xam ni moom la ñu nar teg ak taxawoo ko ci làmb ji da leen koy expliqué di nuyu aussi sama frère Issa Ndiaye nga xam ni moom moo amee Yacob parce que coow li bari na ku làmb ji yaa ko lii du fi du fi gan ci Gaston Production en 2010 ñëwoon naa fi ay tubaab ñu tudd Sport Vision kenn waxu bu mel ni ñooñu li doon ay tubaab tax te Sénégalais yi ñoo dafa liggéey fukki yoon tubaab yi yaa ko de communication man la ma manoon xëy na mënatuma ko di daw di dugg ci sponsor yeeg di fu ne ma dugg loolu rek a tax ma jël kiyaa ko mënoon naa jël ñeneen comme mënoon naa jëlaat ay tubaab mais tubaab yi suñu xale yi ñoo leen tax a liggéey fukki yoon juróom te ñoo gën a xam réalité am ci réew mi. consommer local. consommer la ñu santaane moom la président Macky Sall mi ngi tuddee combat bi santaane. te it nag dama bëgg mu leer. Lamine dama bëgg mu leer Gaston mosu doon ko jëlu lëndëm bu ne xam na Gaston Gaston yàgg na fi su lamb ji ak seef bii tey nag euh, ginnaaw yàlla ak yonent bi Gaston ci yàlla ci loxo Gaston te ma kontaan ci lool parce que su ma fi defoon lu bon sama doom yii ak promoteur yi fi nekk buñ ci dugg suñu ñemee ba dugg jël risque ni ci def seen alal ñooy gagné ñuy perte yëpp c'est parce que Gaston am na lu mu fi def et Moustapha Gueye mii toog xam ne dara parce que combat bi yëpp donc waaw combat bi kenn tëggu ko ku dul Gaston Mbengue ànd ceeg IACOM ko lépp luy communication ak lépp luy organisation combat bi mois de janvier ci arène nationale bi parce que nag combat bu day nii amatul stade stade yi moom génne nañu parce que am na jur bopp loo xam ne moo gën a stade donc arène nationale la waxu ma ni maa fay dëgg dëgg ndax promoteur yëpp am na droit dëgg bu am combat ci diggante bi te bu ko baatee ci da nga ko fay dëgg ci gàttoo amewul caabi arène pour di ko di ko di kenn ñëpp ko moom arène nationale janvier la arène nationale la combat bi Malal demal ci invité. ñu daal euh, dalal ki nga xam ne moom moo di euh, Issa Ndiaye nekk ci sa ndeyjoor bi nga xam ne mooy ren lu jëm ci wàllu communication wàllu marketing Issa maa ngi lay nuyu. Malal maa lay nuyu di la ziar. mbaa jàmm nga yendoo. sant yàlla bu bëri. tarkam di nuyu euh, mbokk yi fi teew yëpp di nuyu famille Lam di rafetlu trop jotaay bi. te di euh, wax ne ñu ngi jëm ci événement bu mag ndax bu euh, ñuy wax wàllu communication di wax wàllu marketing di ko jëmee ne ci wàllu làmb dañuy naan mbër yaa tax mais bu ñu nee mbër yee tax dañu naan yan mbër ku ne xam na ne Balla Gaye ak Modou bokk nañ ci mbër yi nga xam ne seen image nekk na image boo xam ne am na solo te nekk na image boo xam ne neex naa wone boo delloo ci wàllu sponsor ñi nga xam ne ñooy yëngu ci di société yi te ñuy am yéene di dugg ci làmb pour fësal li ñuy liggéey dafay yi ñooñu am lu ñuy image yoo xam ne. Euh, Isaana Balla ñii ngeen gis ñooy waa Kër Balla place du souvenir gis ngeen nii nga xam ne waa këram di waajal fi nga xam mooy fa mu war a toog moom mi nga xam ne moo di Balla Gaye lii nag ak làmb moom ñoo ànd isa doxal waaw lii ak làmb ñoo ànd mais liñ ci bëggoon yokk loolu bés boo ko tegee ci seen loxo ndax ñafa ne ñu leen boo nee leen boo leen waxee image yu niiw laa leen di andi ñoom xam nañ image yi jaay ak image yi dul jaay yàlla dogal na nag ñi ñu am tey nekk nañ ñoo xam ne wax dëgg yàlla am nañ yaakaar ne dinañ image yu neex a jaay jërëjëf waxtaan bi daañu ko xoolal léegi Issa mi ngi toog ak ki nga xam ne mooy Issa Ndiaye Issa itam moo yore plateforme bi Ibrahima moo yore plateforme bi nga xam ne ci lañu war a bi nga xam ne dañ ko war def ci wàllu euh, pay per view loolu nag xewoon na Sénégal juróon ay coow Gaston ak ni muy liggéey doon delloo si ko euh, Ibrahima maa ngi leen nuyu yaa yore Buzz Pro yow ñu dénk loolu muy lu diis waaw lu diis lu oyof tamit parce que alhamdulilah def nañ première expérience bi donc xam naa ni expérience bi ñëw mooy daal mais permettez-moi ma nuyu assistance bu fi nekk yëpp di nuyu aussi téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers la TFM donc euh, comme ni ngeen ko xamee Ibrahima Faye muy liggéey ci plateforme Buzz Pro bi di def pay view defoon nañ ko ci combat Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ñu toujours sur une même logique logique bi mooy innover lamb indi système yu bees yoo xamante ne jàpp nañ ko bu ñu ko tegee ci Sénégal dina tax làmb gën a jëm ci kanam et comme xam ngeen ni sponsor yi newatuñu fi woon donc il faut mu am système yu ñu teg ci dëkk bi pour mun làmb am xaalis yoo xamante ne dina ko amat comme avant. loolu euh, dinañ ko gën a xóotal Lamine. dama lay bàyyi nag nga daal xam ni toj na làmb Sénégal. dëgg la toj na làmb Afrique. dëgg la toj na làmb àdduna. li mooy Balla Gaye ak Modou Lo taxawati na leer na ni Gaston Mbengue moo ko tëkk ban taxawaay la ci waa Casamance di am ban taxawaay la ci waa Sénégal di am ak lan lañ war a mën a xaar ci boobu la combat ndax dafa bari woon coow lool te ñi bëggoon bari nañu lool te tey yàlla dogal mu dal ci loxo ki nga xam ne moom mooy Gaston production Double Less yow la Sénégal yëpp di dem. waaw maa ngi sant yàlla di sant yonent bi di sant suma ñaari waajur di sant Sénégal suma wax du bari dafa lu mu mel loo xam ne métti na ma lool rek moo ma lu la métti dañ ma jiñ loo xam ne dañ ma bëgg a yàqal suma diggante ak suma doom yi rek loo xam ne daf ko metti ñu bëgg ko jaxase ak ay doomam moo ko indi fii tey lan moo xew luy xew mooy làmb surnaal làmb dafa amoon loo xam ne gis naa ko ñu bind ko ci làmb ñu ne ni jox na ma cinq yaakaar na a bàyyi seen xel bu baax a baax ci man ma juddoo ba ma tànga musu taxaw tribunal surtout police ma nekk nit koo xam ne ah, na ci lu am ba doy na may sant yàlla di sant yàlla di sant suma doom may may reer may ndékk fonk nag ku mu doyee la ci doy man du ma jëlee suma doom di ko jaay kenn ngir baal ma ko nag naa lam seet leen baax li ngeen def waaw xam nga loo ne waaw waaw dëgg la mais xam nga boo gisee euh, li mu wax nii maa ngi ñëw dafa am loo xamante ni daf si am li si am mooy ku lire journalu làmb xam nga xam ne dañ ko def au conditionnel conditionnel nag maanaam yéen ñi nga xamante ni yéen a jàng yéen yéen a koy man a xam accusé wuñu kenn gratuitement pour man mais aussi tam dañ ko def ko conditionnel parce que man lire naa li nga xamante ni nii moom mooy moom waaye waaye waaye gannaaw wala ñaa dafa nii nettali xuloo que 2009 2010 ñu war a def revanche. te ñëpp ne Modou Manga la. te mu ñëpp ñu ne Modou Manga la te yow mille nga gis xam nga bés bu mag combat bi lu lu la jaral. dëgg la combat boobu boo seetloo seen ñoom ñaar yëpp xale lañu jàmbaar nañu foo xam ne moom ah yaakaar na foo ko nattoo rek weesu na ko. Mhm. Ah, Modou jàmbaar la xale la ñeme na bëgg na ko def. Mhm. Balla nag wax noppi. Mhm. bala eh, am na yoo xam ne ko rek mais ba eh, bala moom dafa doon. dafa lu mu def. ah Moodu lu moom cest à xamal ma ko dara mais xam naa ne ku a bëree la. non daglu ma leer la moom. xam naa ko ci loolu mais bala moom. Hmm. ah lu mu doon dafa bari. Hmm. mais may sant na di sant waa Casamance yëpp. maa ngi dugg lu ma xamul nag. yaa ngi dugg lu ma xamul. lu ma xamul nag ma bëgg a waa Casamance ngeen xam nag li ngeen dugg nag. <laughs> li ngeen dugg. Hmm. tàng na. ma bëgg kenn ku nekk nga jëlee sa jaasi nag. <laughs> gis ne waa Casamance jaas yi ñu tàng moom la nañ nañu làmb seen jaas yi alaaji biram yi sama pare euh, mbooloo bi maa ngi nuyu ñëpp ku nekk si toog ak santam euh, sant yàlla bu baax baax baax euh, ndax comme naa Modou Lo Balla Gaye comme ni ngeen ko bari na coow toog mais nag dafa normal parce que Modou Lo Balla Gaye classique dafa nekk loo xam ne bi mënul bañ a coow mënul bañ a bari coow donc ñun dañ jàppale rek loolu rek moo indi coow li mais leneen parce que combat boo xam ne bi dafa imposé wu si Sénégal parce que làmb dama yàgg di wax ne ay mbër du ñu wutal ay mbër làmb moo leen boole te ñoom ñaar làmb boolewaat naa leen ñu boole daat na ñu war a bëri donc ñu ñaan yàlla rek incha fekkee ak tal ba mois de janvier vraiment ñu mën ko def si jàmm ak salaam parce que lii yëpp cadre sport la lépp lu ci mën a am rek vraiment dañuy ñaan yàlla rek mu nekk si jàmm ak salaam euh, ki nga xam ne kii moom la yàlla parce que yéen jox ndam li bu jox ko ko. salaamaaleykum mais dama dégg léegi double S manager bu wala ngay mu ni moo ngi dugg lu mu xamul moo ngi dugg ci lu tàng ba tax ñu woote wàllu Casamance fu ngeen bëgg a bala ngay napp ji janvier la teel na de biram waaw bon comme nee na mu ngi dugg ci lu xamul ah xam nga comme baag rek parce que ñun aussi ñun la ñuy xam ne ah? ko bu pare. <laughs> naan euh, opérateur yi dañ fi nekkoon doon joxe visibilité doon bëgg visibilité mais man je pense que ak li ñu leen indil nii amatuñu kese visibilité wala notoriété mais ils ont un gain direct maanaam ci làmb ji ñoom dañ ci nar a am xaalis directement à travers le contenu parce que qui dit plateforme pay per ak d'autres canaux de diffusion mais internet daal lañ ci jiital donc bi yoon révélation bi moom mooy dinañ am benn opérateur bu ànd ak ñun nga xamante ni problème yu bëri yu amoon bi passé du am ndax ci euh, bésu combat bi kese dañ mën a xool ay image ci plateforme bi wala dañu mën a xool ay image ci plateforme bi tout au long de la préparation du combat exactement c'est-à-dire aussi le problème majeur la dernière fois mooy ni que jour lamb ji 21 mars ci lañu lancé woon plateforme bi bi yoon plateforme bi dañ koy lancé au mois de septembre bu ñu lancé plateforme bi lépp luy contenu le quotidien de Balla Gaye 2 le quotidien de Modou nu ñuy yeewoo nu demee entraînement si luy koy exactement tu bien compris abonnement mensuel lay nekk ñu am un contenu exclusif mais on me dira que ñu nekk ci àll bi te amuñu débit internet bu baax naka lañ nar a def bi yoon dinañ mettre à la disposition des populations ay décodeurs yoo xamante ne dinañ mun a seetaan lamb ji dans de meilleures conditions comme sa télé rek antenne rek ngay soxla aussi am na li ñu woowee script je pense que ñu nekk fii ñu ci bëri euh, ci presse bi ay site internet dañu yokk yi donc dinañ collaborer ak comme on l'a fait lors du récent événement defoon nañu ak TV Sénégo et site internet yi fi nekk yëpp mën nañu rapproché wu ñu jox leen script boobu ba nga xamante ni lépp luy contenu ci Balla Gaye 2 ak ci Modou Lo dinañ a am au quotidien on vous promet 30 minutes de vidéo tous les jours on vous promet aussi une série exclusive de plus de 16 épisodes mais vraiment un contenu alléchant donc jàpp nañu que da ngay def série série lu dàq Balla Gaye 2 Modou Lo seen image visibilité bi c'est exceptionnel waxaatuma la contenu boobu noonu kon xam nga ni opérateur yi dinañ ñëwaat ça c'est sûr. kon daal mën nañ jàpp ni nit ñi dinañ am garantie qualité image bu am 5 mois pour tester ko dinañ am 5 mois pour di dugg ci plateforme bi actuellement may wax ak yow ni c'est déjà prêt on a appris de aussi dinañ a liggéey pour améliorer loolu. jërëjëf Malal Malal xam leer na. leer leer na léegi parce que wolof jaay ne. lu mat def ba dee bu dekkee mag bis bi nii la képp ku fi ñëw pour yàq rek yàlla na yàlla toroxal di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu supporteru Balla Gaye 2 di nuyu supporteru di nuyu suñu papa Gasson di nuyu Birame Mbène di nuyu ñu fi toog ñëpp di wax di nuyu aussi tamit suñu mbokku Casamance di sant suma sëriñ sëriñ Bassirou Ba di nuyu suñu mbokku Casamance yëpp baal tëdd leen baal tey naa ko mbaa soto avec Modou Lo Casamance bi nga koy naa koy ñu di nuyu foofu ma juddoo di nuyu waa Bon waa Guédiawaye ak Fax Balla Gaye numéro deux yëpp di nuyu Mbaye Diop Talla Mendy Modou Fall ak Simon ak Moustapha Diop rawatina waa kër Sëriñ Tuuba bi ma bokk. rawatina ñu ngi lay bu Kunta Njaasaan bàyyi ma kenn waa kër Cheikh na Cheikh Saadu bi yëpp di nuyu ñu fi teew ñëpp di wax alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf. jërëjëf Modou wala supporter yu Guédiawaye yi ñoo gën a bëgg combat bi Balla ndax combat bi tey ni mu demee gis naa façon combat bu nekk mais combat bi nga xamante ni nii la ko waa Parcelles jëlee ko dënn waa Guédiawaye jëlee ko dënn ndax Balla say supporter gënuñu laa bëgg combat bi ndax Modou Lo say say supporter gënuñu laa bëgg combat bi Modou Lo. waaw combat bi ñoom bëgg nañ ko trop mais sama combat la lu 그래서 서로 말하는 거 combat bi naka la nekkee sa combat yow Balla yéen a ko bokk. personnellement man suma combat la loolu la xam naa ne supporter bëgg nañ ko yàggal ci loolu may daal sama combat la loolu laa ko da nga am da nga am ci fas yéene. waaye li ci fas yéene dañ caa dem rek ñu xam liggéey ñëw sabablu ñaan yàlla supporters yi kan moo ci gën a bëgg combat bi ndax dégg nga léegi Modou Lo nee na ay supporters am bëgg nañu ko lool waaye moom combat bi combat la. waaw combat bi comme ni ko waxee rek man waxuma samay supporters man maa ëmb combat bi. yow yaa. maanaam ëmb combat bi man maa sabab bi. yow yaa bëggoon combat bi. maa sababu combat bi. ok yow yaa tax combat bi am. mais Balla lu lu lu tax nga sababu lu combat bi lu tax. waaw Modou ndaanaan la ku ko xam-xam ne ndaanaan la Balla Gaye ndaanaan la dafa am fu ñu jaar fu bëri bëri cay ma pat yàlla bu gën a bëri bi passé mu jeex. 2009 ma daan ko ci. dafa am mu war a leeral Sénégalais yi xam mooy mooy sama diggante moom yàlla dogal na taxaw na parce que tey lamb tey boo nee lamb Balla Gaye deux buur la moo tax ak ah, li fi am léegi sànq mënut a ñàkk bañ a am. mais dañuy ñaan yàlla ñu dem ci jàmm mais l'essentiel a bi la suma combat maa ko ëmb maa ko bëgg maa ko soxla maa ko tibboo dañuy ñaan yàlla muy may ñu talal fekkee. Modou Lo Balla Gaye événement. Gaston production. Modou Lo Balla Gaye nar am ci arène bi nga xam ni moom la ñu def 32 milliards Modou Lo Balla tey lamb Balla Gaye 2 ak Modou Lo mérito nañu président ñëw seetaan suñu combat parce que tey yàlla moo dogal Sénégalais yi nekk seen biir xol kon président bu ko defee dafa war kon donc vraiment ñu koy rafetlu di wax euh, combat bu rek bi nga def yëpp ñoo koy seetaan mais président bu ñëwee aussi tamit day a neex. Hmm. waaw di si ñaan yàlla aussi bis boobu yàlla ci ndam bu waaye di wax supporter dina may wax chaque fois rek buñ ko yëg affaire bi ci suuf responsable la ñoo fi teew benn suñu papa yaa ngi nii toog ñaareel bi ñun ay responsable lañ. ñu dégloo gars yi ñu dégloo gars yi ay responsable lañ même ba ci supporter yi aussi tam ay responsable lañ dañoo ñëw pour supporter seen yëpp